C'est-à-dire que le problème palestinien et israélien, nous, on ne peut pas le résoudre. Surtout nous, nous les petits, euh, <laughs> le petit Sénégal là, on ne peut pas nous résoudre, on ne peut rien résoudre. Tant que les musulmans ne sont pas unis, hein, ils ne euh, euh, rien résoudre. Nasser avait décidé ça. Saddam Hussein, Kadhafi, c'est ce qui était en train de combattre pour éliminer cet Israël-là. L'Israël est un petit pays, ce n'est pas un pays. Les Israéliens viennent de l'Europe c'est des juifs, c'est Hitler qui les a cherchés. Ils ont fait une nation envers la, Palestine. Maintenant, ils sont des très puissants, un, un, État puissant qui minimise le Palestine. Ils n'ont qu'à faire dégager les Palestiniens, mais les Arabes ne peuvent rien. Si vous vous basez de l'Arabie saoudite, des courtiers, des milliardaires, euh, euh, euh, euh Dubaï, ils ne peuvent rien faire. Parce que c'est eux-mêmes qui associent avec les Israéliens. Parce que les Juifs ont l'expérience. Eux, ils ne peuvent rien faire. C'est les Juifs qui font tout. Les Juifs ont dominé le monde. Pas, pas, le, pas, pas le, système arabe, mais le monde, je te dis. Les Juifs ont dominé le monde. L'Amérique, c'est les Juifs. L'Amérique, les États-Unis, la France, l'Allemagne, nous qui, sont, qui ont fait l'Europe. Mais les Juifs en Europe, quand un peu la police vient, ils n'arrêtent personne. Les Juifs, on les arrête même pas. Ils sont bien organisés. Ils sont matures. Ça se voit, nous, nos Juifs éthiopiens là quand l'Éthiopie avait eu des problèmes, les Juifs éthiopiens hein, sont allés en Israël, ils ont des, papiers, même en Europe, ils sont là-bas payés, nourris, il ne leur manque rien. Ils sont organisés. Les musulmans ne sont pas organisés. C'est ça, hein. Moutaka a dit que je tends la main tous les musulmans. Je leur tends deux mains pour ces derniers discours. C'est des causes comme ça. Si les musulmans étaient unis, euh, Israël ne pourra rien faire. Ils n'osent même pas penser <laughs> euh, du, du Palestine. Mais si vous n'êtes pas unis, Hein? Nous, on ne peut rien, parce que nous, on peut rien contre la France avant de parler d'Israël de, Israël de tout. C'est trop. Et les juifs, il y en a partout dans le monde. Ils se sont réunis. Israël, quand tu parles, tu trouves un juif français, un juif allemand, un juif éthiopien, tous les juifs, parce qu'ils ont rassemblé tous les juifs. Voilà, ils sont partout dans le monde. On se fatigue, mais c'est le destin, il faut l'accepter. Tant que le rassemblement musulman n'est pas là, vous ne pouvez rien contre les juifs. Rien, rien, rien, absolument. Il n'y a aucun État musulman qui peut faire quelque chose. Ce qu'on pensait à qui peut faire quelque chose, c'est Saddam Hussein, euh, Kadhafi, mais ils les ont tués. Regardez comment ils les ont tués, ils les ont humiliés. Alors donc. di ñaan sama kàddu yi ku ci nekk bu fekk la ci jàmm eh, di fas yéene ci ay kàddu eh, na xam li xew ci Palestine xew ci bërëb yëpp yi nga xam ne jullit dafaa nekk ci àdduna bi ndax jullit jamono ji ñu toll eh, moom laa yaakaar ne moo am sas bu rëy rëy rëy te sas boobu suñu jàmbaar ci Xaadimu Rasuul da cee liggéey lu bëri indi ci solution waaw mooy nañu nangul yàlla nañu kennal yàlla aduna du mus a baax aduna yàlla dafa ko pour mu baax waaye nag dañ fiy baaxee fii lu ñuy baaxee lu ñuy yóbbu àjjana fii lañ koy liggéeyee waaye moom mënul a baax nañ ko bëggee mënul nekkee noonu waaw ci fitna la ñuy nekk ci coono la ñuy nekk ba yàlla jëlee ñu fi yóbbu ñu atte ñu ci nekk bu fay la sa jëf waaw waaye ñun moom nañ xam ne eh, li xew ci àdduna bi am naa yaakaar ne dafa mel na ñun lañ ko def waaw ndax ñun ki nga xamne moy mooy jëwriñu yonent bi fi la nek fi la nek lu ñu rasul nek ak mom lepp luñu def julli rek dafa melni jabatam lañ ko def ndax mo jabaté ñep kon ñi ñun ñep dañuy ci wara dégg li xew Palestine dañuy ci wara dégg jamono ju nek na khutba yëpp da ci wara wax fu murid tok waxtan war na ci yëkëti kaddu wax mu naxari lol lol lol lol waye ma gis ci nak liko gëna tax bu gëna metti sax mo ñu dañu nek ay julli nek ci rew yo xamni ñafa nek nek luñ fa diiné nek luñ fa l'islam seen bop lañ fa nekkal ndax duñ ci yabi duñ ci wax te koo nga xam ne mooy Israël di noot jullit yi di noot Palestine dëkk jullit yi lañ am ay représentant am ay ambassade di fa dem di jëf jëflanteeg ñoom man bu ma déggee ne Israël mi ngi ci Sénégal fii lu may métti dafay ëpp ndax lan ndax état Sénégal affaire relation coopération international tax mu yaatal Israël mu am fi ambassade bay dajale suñu imam di leen defar ay teranga di leen invité Israël ñu di dem ak jëf ju ñaaw ju muy def di ko def ay jullit ñu ñu ne ay jullit lañ loolu dama yaakaar ne xel mënu ko nangu xel mënu ko nangu benn yoon euh, lu amul solution nag amul lépp am na solution waaw ndax euh, dama gis ne euh, juif yi euh, boo ko xoolee boo xool dama ne sax naxate da ci am ndax pour man juif yi dëgg dëgg dëgg du ñu nekk Israël ñu fa gis ah pour man ñooñu duñu vrai juif yi juif dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg pour man boo xoolee taarix jamono yonent yàlla Yusufa bi mu nekkee Égypte ñëw fa ñu mekk fa soxna mu am fa njaboot ba njaboot bi dem ba dem a dem a dem ba yaatu fa lool ba am buur bu jógee Asie ñëw fa jël leen noot leen bañ ne fii ku fi juddu di góor ñu rey la ci la ña fa cosaana woon nekk ay juif ndax juif yow mën naa xam ne africain ak juif rek ñooy jong ci àdduna bi ñooy jong jong góor yi ñuy wax circoncision ñoom rek ñoo koy def képp kuy jong ci àdduna bi rek xama ne laal nga ci juif wala laal nga ci nit ku ñuul ci africain kon ñoo bokk cosaan boobu kon ñi cosaanoo ci yonent yàlla Yuusufa ñoo ba ci yonent yàlla Muusa ba wàcc ñooñ ñooy bani Israël ñooñ la yàlla faloon ñoom la ñu dàq Égypte ndax ka fa nekkoon bon di la not yàlla yonent yàlla Moussa mu génn leen fa yóbbu leen ñu tas ci désert bi nag mais tas boobu ñu tas ña ca baaxoon nekk ca ñoom ñooñu dañ ñëpp dañoo mujjee nekk julit jébbalu ci yonent bi di liggéeyal Sëñ Tuubaa ñoom ñëpp laa wax ne waaye ñi nga xam ne ñoo ci raxoon te bokkuñu ci di ay seytaane seytaane mën leen ñoo nekk ci àdduna bi di ko lëmbee ñooñu nag laa yaakaar ne ñoo dem ba jamono am natu Hitler jàpp leen di leen rey di leen def ci ay fuu di leen lakk waaw loolu métti na métti boo xam ne bi àdduna bi la métti loolu loolu dal euh, juif yi dal leen ci jamono jooju ci deuxième guerre mondiale bi ba yàlla def ñu faagaagal Hitler waaye Allemagne bi nekk fi nga xam ne ñoom ka ko doon def fa la dëkk fa la cosaanoo moom kenn wax ko dara dañ ko may jàmm te waroon nañ wax ci moom moom lañ waroon a sonal attaque attaqué ko pas Palestine Palestine reyul juif lakkul juif xeexul juif Palestine ay jullit lañ jógee ci gox yu wute nekk seen suuf muy suuf cosaan depuis suñu jamono maam Ibrahima ña nga fa ba wàcc ba wàcc ba wàcc ñu mujjee ci jamono jooju ci surtout Ibrahima yi ñoo cosaanoo foofu kon ñooñu ñu leen di dal jullit yëpp a dal jullit a naqari Euh, yàlla nag baax na euh, ndax yàlla moom euh, àdduna da koy jeexal te nit du la am foo faatoo rek sa àdduna jeex na kon yow bu sa àdduna jeexee sa coono wàcc na la ca teg sañ mooy nga dem suñu borom mu fay la lan ceef lu waxtu liggéey ko kon ku ci nekk na góorgóorlu ci njub li ñuy wax muñ muñ mu tàggatu ci ndax àdduna dara neexu fi ci muñ ndax mooy genn wàllu diine bu ñu si yàlla dimbale bu ñu mën a muñ dëgg-dëgg daal comme ni ko sëñ bi jàngalee sëñ bi lu mu dajul amul te gis nga fi mu mujjee gis nga résultat bi kon Palestine li ñuy dund ne dina mus a jeex la ca topp ah, macha allah dina neex kenn du ko rëcc. siaré ñi nga xam ñi ni sétan ñëpp rek di ñaanal tamit suñu mbokk jurit yi nga xamante ne ñoo nekk Palestine yàlla yalla yàlla wallu leen ci num gëna gaawé a fan yi mom li dund met na trop ñun jullit yi nga xam ñoo nekk Sénégal ñu ko and ak ñom di len ñaanal ci barab bu bi nga xamante ci la nekk mooy Masaalikul Jinaan yàlla na yàlla gaaw leen métti na trop trop trop waaye man li ma ci ñaan ak li nga xam ne moom laa ci bëgg yokk mooy sunu mbokk jullit yi nga xamante ni ñoom ñoo ni seetaan nu yi ñaanal bu baax a baax a baax a baax ndax xeex bi yàgg na métti na waaye boo xoolee ñi ci gën a e, loru mooy ay tu tànk ay jigéen ñoo xamante ni ndeysaan boo leen dee xool seeram day daw ndax ay faqiran yoo xamante seeni waajur dee nañ ci guerre bi surtoutment suñu mbokk jullit yi nga xam ne dañoo nekk place ñoom ah, day na waa trop trop xanaa di ñaan mbokk jullit yi nga xamante ni ñoom seen kàddu fa mu yegg ñun suñu kàddu yeggu fa ñu daal di leen di wallu ci nu mu gën a gaawee waaye rawatina Sénégal gi nga xamante ni ci la nekk suñu état bi ñu fexe leen a jàppale suñu mbokk Palestine yooyu te ñu ngi leen ciy séntu ndax jullit jullit tey mbokkam waaye ah, waa ñi nga xamante ñoo noonu yu bon yooyu nga xam ne ñooy wax Palestine seen i xemmemteef ak seen i bëgg-bëgg yàlla na ko yàlla gaaw dëpp ci ni mu gën a gaawee ne metti na trop ñu ngi dolli ñaan rek ci barke Serigne Touba ci barke Masaliku Jinaan mboolem loo xam ne Palestine euh, namm na ko ci kaw Israël rek yàlla na ko yàlla yeggale ci jàmm ci barke Serigne Touba xam ne metti na trop ñu ngi dolli ñaan mbokk yëpp rek macha